ñoo ñu bëgg rek. fu ne seen nit ki mbaa sama kër. naan man xaw ma lan la ca wàcc am ci. caana fay ko ko jox pour mu jënd boisson. waaye bu fekkee dem du woon sa doomu nday li nga xam da koo bëgg nag. Mm-hmm. waaye nag bëgg yee koy fay de yëg na la de. Mm-hmm. te koo bëggati na la yëg. xam nga ni lii dafa rëy. mënoon na laa magale kan nga sëndam tollu daal ah, mu ngi noonu ah. Adja dafa jóge sax. kon jeex na. Mm-hmm. waaye lii nga def def ko ku soxor def ko. te def ngaa sa yéene. Mm-hmm. xam naa ne ci soxor ëpp na lii. Mm-hmm. waaye nag nan dem yàlla nañ ko def ci. la def naa nan ko defa tax. waaye leen ko de. barke Cheikh mu ngeen bëggoon rek wane ngeen ko. moo ñu def ni boppam jugal. <laughs> sëriñ fi mu toog di ma jàppal di gis ngeen ko naan. man de lu ne laa koy yekk lu ne laa koy wax te du mer du changé. wallaahi lu ne laa koy dama ko sonn lu ne laa koy yekk lu ne. bu baax man noonu la mel nee naa ko sa xol la la yàlla fay. macha allah. ñaari junni. ñaari junni. ñeenti junni. ñeenti junni. juróom-benni junni. juróom-benni junni. juróom-ñetti junni. juróom-ñetti junni. fukki junni. fukki junni. doomu ndeyam jolie maman. waaw waaw. Ah, waaye. loolu moom mooy xalaat sama. sama doom ji Ndaya Sané moo ko jox. macha macha allah ah. am naa ne bëgg na leen waaye yéen ngeen ko def. def seen délégation bi en defante moom bu baax. bàyyi ko ko relax. am juróomi junni ca Ndaya. ñaari junni. ñaari junni. ñeenti junni. ñeenti junni sama doom

daan doon si wala café wala café café. sa doomu ndey ñëw de. te bu ne bu ngi ñëw ci mbaajo kenn du ñu tax. la. moo la bëgg. na lu baax. te lu baax lay incarné. Ah, bu sañoon lu mu am moom da ko yéene nit. saa yu wane lii laa bëgg moom day mel ni mbir boppam la. da ciy yendu da fanaan man damay toog sa. moo la fonk. moo la yëg. xoolu sa dara. foo jëm ma ma mun naa yaakaar na ne mbaa jëm. dëgg la reetaan da nga ko bëgg de. moo a loolu dafa jafe du taay du sonn heure bu ne la ko mbaaco yi guddi fajar heure bu ne la ko mbaaco mu bàyyi lépp. dëgg la da nga bëgg mbaac dëgg la yàlla moom la de kii dafa bëgg mbaac ba bëggul mbaac dëgg la man mi daf may ñëwal ba mu jekk ni ma kaay jël fu may ànd ak mbaac du ma ñëwal man chaque jour ma ne ko si léegi balaa yaa ngi ci bàqee Cheikhul Khadim am Adja 200000 ci ba ci ci mun naa laay mun naa créer laa gën a laa ko tuddee dafa gën si léegi balaa yaa ngi ci bàqee ah, mun naa nga jël waaye solo yow mun naa sol mun naa danaan may waaye looloo ko sax ci man lu ma def neex na ko lu ma wax neex na ko dama ah, mun naa nga jël ci léegi balaa yaa ngi ci bàq Cheikhul Khadim. am Adja 200000 ci ba ci ci mun naa. laay mun naa créé laa gën a laa ko tuddee dafa gën. ci léegi balaa yaa ngi ci bàq Cheikhul Khadim. am Adja 200000 ci ba ci ci. ah mun naa ngeen. waaye soo ñëw mun naa sol mun naa danaa may bàyyi. waaye looloo ko saf ci man. lu ma def neex na ko. lu ma wax neex na ko damaa gàll. mënu ma taasu mënu ma way mënu ma fecc. waaye lu ñu wax mu ne Maguette Ka. maam Cheikh Ibrahima mooy sa maam yow alxuraan nga xam kaamil yooyu kon jeex na waaye tey damay sànne ku di fëlantu def lu ma sax di subaa raw sax dama ni kii si ngeen ne ak kañ la mel ni sama rakk damay xool ba ci dangaa changé de kontaan nañ Maza yow moom dangaa baax yow yàqoo dara ba ma juddoo ba tey ci nii laa la xam nga yar ma bii ba façon bii rek laa xam ci yow fu ñuy defee lu baax rek ngay toog duma la gis nga toog ci déga duma la gis nga toog ci ay langu rubi duma la gis ci ay ndey ci ngës lu baax rek laa la xamee barki say dinaa ci lu baax ngay dox ci lu baax ngay wax ci lu baax ngay digle. dëgg la. ful la bi personnalité dignité doxoo ci daray kaa ma bëgg la nag sama biir xol barke Serigne Babacar ba mu ba may ba may ba loolu bi nii rek nga ma sa moo tax kii heure bu ñu toogee fii di waxtaan maanaam waa ci ñooñu duñu baax sans façon du ñu nitu détail du ñu nitu problème xam nga nitu lan lan jàmm salaam lekk ka fooreetaan barke Sëriñ Babacar Si. Mbathio de foo ko fekk jàmm la fa. moom moom du am jàmm rek lay gis Mbathio fi jàmm amul mënu ko moom mënu ko coow. moom coow rek la la dal. maa moom du ñu tay. Mm-hmm. ba bindool ko lool dama ci kontaan. Mm-hmm. ndax tubaab maa fekkee ndax police moo bëgg maa fekkee. la maa fekkee man. Mm-hmm. ndax dama ne ko ñoo àndul ci benn néeg ba. te ba nga amee appartement si sooma déedéet azo presque këram la yaroo fa màggee fa yaroo fa la fa ah, benn yoon la fi ñëw nu ko fi dootoo fi duggati. wóor na yàlla muy nit ku baax na ko amul benn façon ni mu tolloo toll. dafa ragal. wóor na yàlla kaareel ñu lekk kaareel ñu naan kaareel ñu ànd. am nit ku baax boole la mu may la loolu fierté nga bu amee lu baax day bëgg nga am ko. <laughs> amul problème. waaye yéen kenn gënu leen. déedéet barke Seydina Muhammad mënoon ngeen bàyyi ba suba. waaye xam nga kon if nit ñoo mën a defee lampay tàkk. te bu ngeen bàyyi woon ba suba it kenn du leen gën. Mm-hmm. Canzo moom ñii rek lay mel. barke si maam Ndiaye sama yaay. ah yow nii ngay may bëjee sama baay. mu yaru loolu mais bon. kontaan naa doon parce que dama doon marché sax dëgg la déedéet. wala marché kese la. àjjana bàyyi suuf si dëgg la. borom Dubaay nga ma dem. barke Serigne Touba ñoo fa ñoo fa. indi woo fi dara jógee Dubaay daal di dëkk. parce que yonent bi pour ay bi xoolal lii. dëgg la xoolal lii rek. Moustalifa Tissane Diagne. mbaa la. mbaa ngay door ci saa xale bu baax boobu. xale bu tubaabe boobu. <laughs> chéri monsieur Sané ba nga jàppee ba tey ba nga ne mbaa coro ba ne woon non non j'arrête ici ce n'est plus mbaaco. dëgg la mais dana ne fii si c'est mbaaco. sama ba nga ne waaw ba tey neewoo de. ngay xale bu baax xale bu dal xale bu tubaab bi xale bu jàpp sa ñam. dëgg woo daraa ci wax. bëgg mbaaco. lu mbaaco xewle bu dee tama yaay pay. bu dee anniversaire yaay pay. xale manti doon yaay téye boole woon dara ci wax yàlla na sa jàmm yaay. amiin amiin Adja dund ba yàlla may la doom sa sëy bi mbaa ci di la fekk. amiin waay mais bu boobaa di nga xam ne lebaloo pël la fuuta de te lebaloo ko. dëgg la nga ñëw ci yow defante koog yow ba mu neex ndax xale bu baax. incha allah amiin sama xarit la waaye nag day bari de. Eh. Ah, <laughs> xam ne demoo taay eh. demoo master zeng demoo master tunnel. Eh, non non xam nga foo dem from Dubai. déedéet gën a. aywa tam maa wax ak yow maa xam demoo marché def ko li ma la wax ma man xoolal li baax maa ko xam. dëgg la lii forom Dubaay la. dëgg la bi éclat. cuuraali ci la jóge dama ne na ko a fekk na barke la ci dama ne xoolal nga dëkk bi neexul waaw yow léegi vraiment mun naa yëg moom pendant dafay toog mm-hmm. bu neexee dafay toog bu naqaree dafay toog mm-hmm. moom loolu moom anta la moom mm-hmm. moom sama diggante ak moom xam na man xam naa yàlla xam na xam na yoo xam ne jarul étaler di gisante chaque jour def yëfi naa fekk di ñàkk gisante moo ko gën léegi gisante 6 mois dafay mel ni ñoo ngi gisante chaque jour loolu mooy ànd bu dëgg ànd bu sees première c'est bon déedéet àjjana bàyyi susi dëgg la borom Dubaay di dëkk yonent dëgg la xoolal lii rek <laughs> fii mun na fii Musdalifa fii sànni <laughs> jàmm maa jàmmul la ñuy bàyyi ngay door ci bët eh, maa jàmmul la eh, ko li ma la wax ma man xoolal li baax naa ko xam. dëgg la tuuraale ci la jóge dama ne na ko ci bañ a fekk na. dama ne xoolal lii dëkk bi neexul. waaw bu dul dara moom pendant les durs moments dafay toog. Mm-hmm. bu neexee dafay toog bu naxaree dafay toog. Mm-hmm. moom loolu moom anta la mm-hmm. moom. sama digganteeg moom xam na. man xam naa yàlla xam na. xam na yoo xam ne jarul étalé. di gisante chaque jour def fi naa fekk di ñàkk gisante moo ko gën. dëgg la mais ñu gisante 6 mois dafay mel. moom dégg ko li mu wax. moo fi ñëwoon daaw ci heure bii ñëw ci anniversaire rakkam ji tey heure bii ci ren moo fi ñëwaat di jox rakkam jógu boisson heure bii déwén ñun ñëpp yàlla bu kenn manqué dina fi ñëwaat di indi boisson ci ngénte mbaaju barke sëñ Babacar Si ñu suñ témoin bi ñu ngi koy ñaan yàlla ndax yàlla dara tëw ko te montre yu baax yëpp bokkoor yu bon yaa nga ci horloge bi boo ne mbaaco dafa teral ndayam nga teral sa ndey yàllaa xam boole barke yonent bi maa la fekki woon Kaffrine maa fekk mbaaco ku ngeen barke sëñ Babacar te ku ci ne ba ma demee rek dama fekkee sa ndey mu toog damaa kontaan dafa mel ni ku ne ci Dakar ñu ngi tëdd ci lal yu baax yi importé fi am de ñu ngi ci tëdd climat fi am mu ngi sedd congélateur fa am yéen ngi bëggal seeni waajur barke sëñ Babacar koo ci dugg kër ndayam ca ca ca mm-hmm. mel ni ku ne barke Seydina Mohamed dépense yaa ngi dem ravitaillement yaa ngi dem lépp ngi dem ndax man damay fekkee di xool di gis yor samay bët am na loo xam ne tey jii su demoon seeni kër day fekk ko fa dama leen di bàyyi waaye ba ma fa demee dama leen a gën a naw dama leen a gën a tëye ndax damaa xam ne nag lii nag du ay waxi neen barke yonent bi lii ñaan la te ñaan bu nangoo sonal borom nga dee nga dund nga faat lépp yàlla li muy def da koy def te yàlla bu signé nag kenn du effacé. déedéet te yàlla dafa signé. boo effacé mu effacé la eh, tracé waat. parce que dëkk xoolal li lay def. mbaaco luy ñëw a dàq. sama ji moo ñëw ci yow ci njëgu boisson màgget bisimilah rahmaani rahiim. ñaari junni. ñaari junni. ñaar fukk ci séeri jéen jéen ku mu waajal nga jël fee. sama góor sama xarit. ñu bokk même sang. Hmm. ñeenti junni. ñaari junni. ñaari junni. ñeenti junni. ñeenti junni. juróom benn junni. juróom benn gerte. ñaata. sama xol dafa fukk. fukk fukk ak benn. fukk ak benn fukk ak ñaar. fukk ak juróom benn. fukk ak juróom ñett. juróom ñett. ñaar fukk ca munaas. laay laay li laay trois cent mille. maman Coro yaa ngi may may xool. ana Mélissa. maa ngi nii Mélissa yaa ngi may xool taw Mbacke. kon jeex na waaw dama ne. damaa tàmbale rek bu subaa ma ànd ak moom. suba la suba de bàyyi ko eh. suba ci boisson la ñëw de. dama daan ànd ak moom. li ñu bu boisson la Mbacke. waaw boole ko nag bu boole ko toog sa wet. waaw. demul. di def di di loo wax loolu laa de bu subaa capricel ba mu neex. man eh, waaw kay bu subaa. reewatul ba mu neex suba la may saf. jéem la saf